Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen. asalaamaaleykum amaat mbégte bu baax a baax euh, jàkkaarloo waat ak yéen ci seen seen YouTube Reubeuss TV seen émission toj toj comme ni ñu ko waxee su nekk waaye ma ciy feggoog bu ndaw ci am sama rak sama xarit di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam waaye mbokki comme ni leen ko waxee su nekk rek moom toj toj fépp foo xam ne rek am na fa moo xam ci biir réew mi lay doon wala bitim réew ñu fa dem jëli ko indi ko fii waxtaanee ko waaye ci kalamay kocc lay doon. waaw asalaamaaleykum suñu mbokku internetu Reubeuss TV maa ngi leen di nuyu di leen euh, ziar di amati mbégte encore jàkkaarloo ak yéen ci seen biir émission euh, toj toj comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk dinañ leen demal fépp ci biir réew mi ak euh, bitim réew lépp lu fay toj toj ñu indi leen ko fii faral fàcceel leen ko. maanaam coow dem ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba Touba nag ban fa demee coow li fa am ca dëkk bi nga xam ne moo di Mbaria. ci ñaar dawalkatu saret ñoom jote woon nag ci xëccoo ay client ba kenn ki jam euh, morom mi ki nga xamante ni nag euh, moom lañ jam te mu ñàkk ba kanam turam di wuyoo Baye Saliou Mboup dégg ngeen coole ni mu fa demee waaye mbokk yi su ma du ma jógee Touba ba tey rek damay des ci dëkk bi nga xam ne moo di Ndindi Ndindi nag la fa mu nekk lu doy waar ci benn waay joo xam ne dañ ko fekk ñu yeew ko ci garab waaye ca mbokk yee ca yem woon nañ sappoor ba sappoor ñëwee nag def nañ fa liggéey bu am solo waaye yoon day ñi nga xam ne ñoo di takk der nag takk der ñi nga xam ñoo nekk ci réew ma maanaam ca dëkk ba police ba fa nekk am solo ndax ki nga xamante ni moom lañ fay tam ñàkk ba kanam moo def mbir moomee wala kan moo ko def lu dem police ma ngi cay def liggéey bu solo waaye su ma jógee foofu rek dama naan dem ci dëkk bi nga xam ne moo di Tambacounda la fa am nekk lu doy waar ci koo xam ne mi ngi wuyoo Fatoumata Bintou Ba moom nag dafa amoon borom kër waaye ci loolee dafa dëbbal li njaa kër këram lu yóbbu lu ci juróom-ñaar fukki million million Euh, ànd ak faram dem ci dëkk bi nga xam ne mooy Guinée Conakry waaye ca loolee jëkkër ja moom génn woon na ci xelam sax waaye mbokki jëkkër yi ñoom ñoo topp mbir mi di dem ànd ak yoon ba yoon teg ko loxo ba fii ñu wax ak yéen moom soxna soocee jàpp nañ ko ba tëj ko waaye su ma jigee foofu rek dama naan coow ñibbisi fii nga xam ne moo di eh, Ndakaaru mu nekk lu doy li nga xam ne moo xew fii nga xam ne eh, moo di eh, Thiaroye sur ci ñetti waxambaane yoo xam ne ñoo demoon ci géej ga waaye delsiwaatuñu ba démb la ñu gis kenn ki mu ñàkk bakkanam mu nekk lu day waar mbokki duma def lu dul daal sama kàddu daal di jox bu ndaw caam nag moom itam mu yaatal li mu andi. ah suñu mbokk internet yi comme ni ma leen koy waxee saa su nekk nee naa leen yéen seen kontante mooy suñu yitte ba tax na seen émission toj toj mi ngi woon fii nga xamante nii moo di eh, Ndakaaru Dakar nag bi ñu fi nekkee dañoo demoon ba fee nga xamante ni moo di euh, Gueule Tapée ba ñu demee ñu fekk leen ñu yeewoo ak aw tiis si mhm. euh, talaata bi nga xamante ni moom la ñu génn mhm. ndax taw bi fi amoon altine bi ñu génn ci la benn xale bu góor ñàkk bakkanam ci mbirum euh, courant mhm. am ci ñaar ñoo xamante ni tamit am nañ ci ay gaañu gaañu yu métti ba jamono ji ñuy wax ak yéen ña nga fee nga xamante ni moo di hôpital Fann bi ma jógee Gueule Tapée nag dama dem ba fee nga xamante nii moo di Liberté 6 ñoom it ñu fekk fa xibaar bu doy waar ndax ki nga xamante ni mooy wuyoo ci turo Mame Makhtar la moom daal moo jékki-jékki daanu démb foofu nga xamante ni mooy rond point bi ah, ni mu daanoo nag mu mujj jaaree fa ah, ñàkk ba kanam waaye waa këram mer ba futtu ndax ñoom nee nañu sapeur pompier bi ñu ñëwee lu ñu defee seen liggéey rafetlu wuñu ko ndax dañoo exposé seen corps ah, suturaaluñu ko defuñu ko lenn mun mu naqar leen torop waaye sapeur yi tamit mu ngi leen di xamal ne yamono léegi dafa metti ndax coronavirus mu ngi ci réew mi te leen ndax xale bu góor boobu corona moo ko rey wala reyu ko xibaar yi ba léegi yi tamit ah, ñi nga xamante ni ñoo di waa kër docteur bi ñu defee seen liggéey xam xamle nañ ne kii nga xamante ni mooy ma waxtaan la mhm. crise cardiaque moo ko rey waaye du euh, coronavirus mhm. ba ma jógee liberté 6 nag dama dem ba fee nga xamante ni moo di yëmbal sud yëmbal nag ba ma fa yeggee dama leen a fekk ki nga xamante ni moo nekk euh, Siteu nekk hmm. mbër ñëpp xàmmee ko ràññee moom la waa police yu yëmbal sud euh, saisir otoom euh, benn 4x4 am dara waralul loolu ndax dañ ne xaritam bi nga xamante ni mooy Abdoulaye Seck day jaay yàmba foofu ca koñ ba te comme mënuñu koo gis Siteu xaritam la ñu saisir otoom pour mu wanale leen nag kooku nga xam ne moo di Abdoulaye Seck hmm. ah, ba léegi dama deseen yéen tamit ba ci dakaar ba léegi ndax woykat bi nga xamante nii moo di Habiba moom xëy na tey jàkkaarloog euh, polisu euh, jëppal ndax ki nga xamante ni moo nekk jarbaatu wujju yaay ja mhm. moo ko porte plainte moom it dara waralu ko ndax jàmmaarloo gu ñu amoon ñoom ñaar mhm. euh, depuis weer yi ñu génn ba Habiba dóor ko fi dóor yu metti ba gaañ ko mu mujj porte ko plainte ba mhm. léegi nag xamuñu fu wanante di mujjee bët Youssou Fall macha allah am solo macha allah yal ci yàlla wis ndox mu sedd rek di wax ni ñi nga xamante ni ñoom lañ wax ne ñoo ñàkk seen bakkan <laughs> yàlla yërëm leen te jéggal leen mboolem kun fa fekk mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy dugg ci sunu xalaat. sunu xalaat euh, suñu xalaat nag euh, di dem fee nga xam ne moo di euh, dëkk bii di Tambacounda la fa nekk la fa am nag mu nekk lu lu yemee lu doy waar loo xam ne toj-toj la ci soxna soo xamante ne ni wax fa dëgg yàlla am borom kër. dëbb ko li sa borom kër maanaam nga jël ci moom lu toll juróom-ñaar fukki million ànd ak saw far dem ci dëkk bi nga xam ne moo di Guinée Conakry loolu lu doy waar la bu ndaw. waaw Youssou mu nekk lu doy waar wax dëgg yàlla saa su nekk man dama koy wax mm. ah, nee naa leen jigéen laa waaye bu dëgg taxawee tamit nañu xam ne rek ne dëgg taxaw na dëgg mm-hmm. yàlla sama mbokku jigéen yi mm-hmm. ah ba léegi daal dama gis ne daal góorgóorloo bi ñu ci néegu sëy yi mm-hmm. boo amee sa jëkkër wax dëgg yàlla yërmande war na fa daw mbëggeel war na fa lalu ba yenn yi daal nga war ko mën a jombale sa diggante ak moom ah, ah, doy na waar nag ci waxtu woo xamante tabaski mi ngi nii di dëgmal ak njaboot gi taxaw di xaar wax yàlla su nekkoon ne sax dafa dëbb li njaar def ko ci boppam ci njabootam sax su boobaa man nga wax ne lii kat moom dërëm bu génnul gaal gi la waaye nga ne coow dem ci dëkk bi nga xam ne moo di Guinée Conakry ànd ak soow far loolu toj toj mënul weesu loolu nag bu ndaw mu mel nag mu mel nag euh, góor ñi sonn waaw góor ñi sonn nañu trop waaw góor ñi sonn sonn nañu waaye nag ñii góor ñi ngi ne góor ba léegi te ñii muñ ñi ngi toog di muñ ba léegi mhm. yàlla macha allah am na solo ñu leen ko mbokk yi euh, seen émission bi nga xamante ne ni moo di toj toj ñu ngi ci cëppaandaw bi duma def lu jox moom euh, bu ndaw caam mu tàggoo aw macha allah Youssou man ne naa leen du ma tàyyi di ko jaajëfal te di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér moom sama yaay jooju mhm. waaye papa yi tamit maa ngi koy ñaanal gudd fan lool gu ànd ak wér mhm. suñu mbokk internet yi saa su nekk nii la fay demee ah mhm. seen émission toj toj la xibaar yu leer te wóor fii lay amee ci seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV. Mhm. Ah, wax dëgg yàlla képp koo xamante ni yaa ngi jàkkaarloog ñun di seetaan. Mhm. boo abonné gul aboneel ah, mhm. ñi abonné tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax seen i commentaire seen i commentaire tamit ñu koy xaar ndax ah, yéen a ñu fi tax a nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous beneen yoon. am mbégte bu baax a baax comme ni mu ko waxee rek ñu ngi leen di bàyyi xel na bu baax a baax ndax gis nañ ñaan rek waaye mbokk yi du ñu def lu dul tàggatoo ak yéen di leen jox dig daje samedi incha allah ci beneen numéro jaa ngeen TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen.